ci sababu wàccaayu 57e ziyaara annuel bu Arafat bi ñu jàpp ni samedi yemook juróom benn fan ci weeru mai atum 2023 ba comité d'organisation bi gàlloo lépp lu aju ci bile bis di sàkku ci mbooleem sopp yi rawatina taalib yi ñu dugal seen loxo jaayante bu baax ci participation yi ñuy amal ngir taaralee ko bile événement ngir joxe sa barkeelu jafewul benn yoon mën nga ko jaaree ci Wave wala ci Orange Money ci 78 320 62 43 wala 77 619 23 56 ak sama ñeenti téeméer bile lile samaw ñaq tabbi na ci biir toolu seex seydil xaaji omar Dramé alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfaatihi alxaatimi sayyidina muhammadin naasiri alhaadi ila siratillahi almustaqim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 maa ngi leen di yóbbante nuyoo bi gën a tedd yàlla jagleel ko xeetu sayidina muhammad wi gën a màgg ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa di ñaan nuyoo boobu làmboo jàmm ak barke ak yërmande jàmmam ja yal na matale leen yërmandeem ja yal na gatandu leen barkeem ba yal na dalal leen yàlla defal leen ko ci seeni njaboot defal leen ko ci seeni bokk defal leen ko ci seeni xarit defal leen ko ci seeni place yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yal na yàlla boole defal ñu ko ñun ñépp mu mel ni dëxaloon naa la ne la danaa del siwaat ubbi beneen buntu bu ma fas yéene ànd ak yéen te mooy bunta mu kaffaraatu zunub mooy buntu yi nga xam ne bu ko nit ki defee yàlla mën na koo kafaaral ay bàkkaaram te lépp luñ la wax ne soo ko defee yàlla jéggal la say bàkkaar rekk jar na sol dàlli weñ di ko doxee walla nga koy dawee ba mu xar ndax dañuy dund ci jamonoy bàkkaar danañ dund ki jamono joo xam ne mbooleem ñu yàlla mayoon cër ci jamonoy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ba ci jamono ji ñu nga doon muslu yàlla jamono ju nëx ju doy waar jile jamono ju tilim ji fekk leen fi ba yonantu beeg boppam sax sallallahu alayhi wa doona muslu yàlla mu jëg jamono ju bon ji ju tilim ji ju yàqu ji fekk ko fi dafa daan ñaan sax ne yow yàlla ida aradta fitnata qawmin fa tawaffanii gayra maftunin yow yàlla saa yoo namee final aw nit maa ngi lay ñaan yàlla nga faat sama bakkan ki la doxut nga di ma finnaal fa tawaffanii xayra maftuunin ñu ne loola ma ngay junji yàquk jamono yow yàlla soo fi naree bàyyi ba jamono yàqu nga xam ne ku ko bëgg a defar sax yàqu waaye yow yàlla bu ma yéexee su boobaa rekk faatal sama bakkan bu yonentu Musaa ñaan ñaanam gilee saxaaba yu tedd ya tamit doon ñaan ñaanam gi ne yow yàlla mu jëg jamono ju yàqu jooju yàlla bu mu fi fekk abi hurayra ñaan na ko ku mel ni abubakar siddiq ñaan na ko ku mel ni sayduna umar ibnul xataab ñaan na ko ku mel ni ibnu mas'ud daana ko ñaan ci riwaaya boo xam ne tirmisi yu moo ko indi kaab daana ñaan ba yaa ngi dégg shaacir ba ne kunna fi zamani alladi kunna nuxaadiruhu fi qawli kaabin wa fi qawli ibni masudi ñun de yàlla nattu ñu ngi fekkee jamono ji nga xam ne kaab ibnu malik yàgg naa muslu yàlla bu ko fi jamono ja fekk ibnu masud yàgg naa muslu yàlla bu ko fi jamono ja fekk ba dàmpi booba demee di saxaaba ya taabiina yi muslu woon nañ yàlla jamono ju tilim ji bu mu leen fi fekk waa ñu mel ni Saïd ibnul Musayyab ñu mel ni Abdul Aziz di xaamisul xulafa nga xam ne dafa maandu woon ci ak nguuram ak ak doxalinam ba jamonoy xilaafa bi mu fi toog fanweeri weer rekk la li fi yàqu woon lépp mu defar ko ba mujj sax rab ya dañoo maandu woon ca maandoom ga fanweeri weer yi mu fi nekk redressé li fi yàqu woon lépp muus daana dajeeg janax te muus du wax janax dara kaña daana gis janax te du ko dàqe waaye jooja jamono xaj dana gis muus tamit te du ko dàqe kon ñi dégg ci ne ni ki njiit bu maandoo dëggi-dëggi maandu rek population ba mën nañoo maandoo ca maandoom ga waaye yàlla sax mën naa branché ca maandoom ga yenti yenti suuf yaag rab yaag njanaaw yëpp maandoo ca maandoom ga waaye ba fanweeri weer ya jeexee rekk ña ko xuutu mënuñoo taxaw taxawaayam ci la muus commencé di dàqee janax ba bis ni ki tey ci la kaña commencé di dàqee janax ci la bukki commencé dàqee golo waaye tamit ci la xaj fu ko muus gisee daw moo tax nga yëg ne maandu lu ama am solo la soo maandoo rekk lépp loo xilif yàlla mën na koo maandul ci sa maandu gi loola sax mu ngi jàngal xadiisu yonantu bi mi ñu koy fàttali yonantu bi dafa daan wax ne yéen jëkkër yi maandu leen ngeen jub bu leen jeng seen soxna yi jub ci seen jub gi waaye boo nekkee jëkkër joo xam ne dangay jaay sa bopp di moy nga ñën nga ñàkk yëg rekk boo amul sens yàlla jox la soxna suy jaay boppam wala mu jox la doom yuy jaay seen bopp kon yooyu jar na caa bàyyi xel soo nekkee waajur di jaay sa bopp yàlla na toola doom yu jaay boppam nga nekk jëkkër di jaay sa bopp yàlla jox la jabar yuy jaay seen bopp moo tax yonentu bi ne rek jubleen seen soxna yi jubee ci seen jub gi fegu leen su ngeen fegoo rek seen jabar yi fegu ifu taif nisaaukum kon lañ cay déggee soo feguwut nga ñëg nga ñàkk yëg sa jabar ji tamit fegoo tut ngay waajur feguwoo tëdd ak jabari jàmbur yeeg doomi jàmbur yi nga ñëg nga ñàkk yëg sa doom ya ña ngay tëdd ak ñoom sa doom yu góor ya tamit ña ngay tëdd yeneen jigéen yu ñu takkut ni nga mel rek lu soqee ko ci yow noona la ñuy mel kon loolu darsu bu am solo la ba tax na kon bu ñu yàlla na tooñu tombeeg jamono joo xam ne Omar ibn Abdul Aziz mu maandu mooma muslu woon na yàlla fekk jamono ji fekk ko fi abu xanifa mi nga xam ne taabiiyu la muslu woon na yàlla jamono ju fekk ko imaamu malik ak imaamu shafii ñi nga xam ne taabii taabii ne lañ doon nañ muslu yàlla jamono ju nëx ju bon ju doy waar ji fekk la fi di jamono joo xam ne su euh, sufiyaanu suuriyu daana muslu yàlla jamono ju fekk ba daana wax ne ku bëgg a feeñal ci jamono lu yàlla feeñalut nga sonn sonole jamono ngi ñëw ñeent ku ko wut da far ñàkk leen ñu ne ko yenn ñeent mu ne jamono ngi ñëw képp ku bëgg a wut xarit bu baax bu wér bu ragal yàlla sa bànneex di bànneexam sa naqar di naqaram danga mujj ñàkk xarit ndax ku mel noona xamatut ndax moo tax léegi li ëpp ci nit ñi la leen di naqari mi ngi jaaree ko ci seen xarit yi mën nañ laa tëggal ndë ndëgg sërëx ba ray la mën nañ laa jaaral ndëgg sërëx ba yàq la mën nañoo jaaral ndëgg sërëx ba ba ba ba yàqal la moo tax jamono ji koo gisati muy bàkku fu mu toll di tiitaru naan diw sama xarit la diw sama xarit la boo yeboo yërëm ko jamono ji duwut jamonoy wuti xarit moo tax Sufyaanu Suuri yu ne mu jëg jamono ji ñuy dund ku ci sàkku xarit boo xam ne soo amee bànneex mu xaroo kook yow nga am nga am nga am naqar mu xaroo koog yow te loola nekk lu dëggu ci moom nekkulu lu dëggu ci yow soo yeboo danga nga boo yeboo maanaam jërul sàkk doo ko am soo ba maanaam da nga mujj ñàkk xarit yépp mu ne tamit jamono ji ku ci sàkku mbokk mu wér mbokk moo xam ne taxaw na ngir bokkook yow sa bànneex pare na ngir bokkook yow sa naqar ci lu feeñ ak ci lu nëbbu ci wéet ak ci wéttaliku ci wax ak ci noppi ci fas-fas ak li ñu fecci mu ne soo muy danga mujj bàyyi sa mbokk yëpp ndax mbokk mu mel noonu amut mu ne tamit jamono la joo xam ne ku ci sàkku alal ju lew te xam nga alal ju leew dafa jafe muy loo xam cosaan la xam cosaan ni cosaanam la waxoon naa la ko ci waxtaan yi paase ba tax na bañ ko laajee maam maaska sax ne ko waaw ndax alal ju leew amatina mun na dimb ak nete laa ci xam ngir rek wane ne alal ju leew dafa jafe mu ne nag kon ku ci bëgg alal ju leew ne moom laay dundee moom laay dëkkee moom laay sol moom laay war mu ne soo moytu ndiku xiif bi ray la ku fi taxawati tamit di sàkku ne kilifa gu mat kilifa laay kilifa woo jël sama lépp jox ko ko da nga mujj ñàkk kilifa ndax kilifa gu mat cent pour cent yombatut moo tax Sufyaanu Suuri ne ku bëgg ñeent soo moytu da nga mujj ñàkk leen ñoom ñeent ñooñu ñëpp muy xarit bu baax mbokk mu baax kilifa gu mat kilifa ak xalal ju lew jooja wax boo demee ca bii na bu suñu maam Seydil Xaaji Malik indi na waxi Sufyaanu Suuri yu jooja ca téeréem booba kon jamono jooja la doon junji hegsi nañ ca di jamono joo xam ne lu lëw moo bari waaye lu leew yombatut Cheikh na Tijaani Cherif wax na ko nee na ku ne lu leew laay dundee rekk boo muy tuut xiif bi ray la ba tax na moom tamit doona muslu yàlla ki jëlee jamono ba daana wax na jamonoy bàkkaar la dafa bari ba mel ni taw bu mu fekk kenn ci yéen ci àll te amut fu mu seeloo fu mu jaar rekk tooy ba tax na ji jamono ñépp a tooy mag ak ndaw ak góor ak jigéen ak sëriñ ak taalibe ñépp a tooy gën a tooy rekk a fi ne nag am na ñu tooy ba ci wóom ñii ci ndigg ñii ci jumba ñii ci baat ñenn ña géej ak bàkkaar mujj nañ di ko sëmb mënatuñ koo génnati moo tax nag kon tooy mënta ñàkk ndax bàkkaar dafa mel ni taw bu fekk kenn ki ñun ci àll te amul fu mu seeloo foo jaar tooy su boobaa nag sa hittee na nekk luy kafaara sa bàkkaar lan mooy wawal sa yére yooyu tooye ci géej ak bàkkaar gi comme bàkkaar man ta ñàkk bàkkaar ndax ne neexut a mucc ci ji jamono soo ne ndax bàkkaar a bari ba boo xoolee gis ko soo waxee wax bàkkaar soo dégloo déglu dégg bàkkaar soo làmbee daj bàkkaar soo doxee xuus ci bàkkaar soo ne doxatuma waxatuma xoolatuma déglootuma ñu fekk la fa sotti la bàkkaar ba nga gën a tooy ki doon wax ak a xoolee ko déglu su boobaa daal kon sa hittee na nekk ci luy kafaara sa bàkkaar yi comme tooy manta ñàkk ndax jamonoom la ñuy tudd jamonoom la ñuy dund sax moo tax bi yàlla yëgee ne rekk mu jëg jamono mu jëg bàkkaar la moo tax mu andil ñu kilifa yu tedd yu sell yuy sowe mu jëg jamono yëkkati jumtukaay yu am solo di ay awraat jox leen ko ñu jox ko seeni nit ña ngir ñu mën a sowe mu jëg jamono waaye mu jëg jamono ji ñuy dund suñu yàlla joxutoon wir dox ci istixfaar ak salaatu ala nabi ak laa ilaha illallah wallahi musiba am moo tax maam Khalifa Niass wax na ko ca kibritul ahmar nee na fallaahu man na biha fadlan wa takrumatan fi axiri dëhri azmanal jahalaati bi yàlla yégée ne jamono ji yàqu na bàkkaar a bëri boo xoolee gis boo dégloo dégg boo làmbee daj boo doxee xuus ci lañu yàlla xéewalee wirdo wii ñi di ko wirdo ci istixfaar ak salaatu ala nabi yeeg laa ilaha pour mu mën a kafaara bàkkaar yi ndax nag mu jëg njëlbeenu jamono yàlla xettali woon na leen ci feeñ ak sayduna muhammad di jëmm ju sell joo xam ne saxaaba bu gàgg mu gàgganti la ku jaaxle mu ñaanal la ku am bàkkaar lum rëy rëy mu jéggalul la yàlla wala wa annahum zalamu anfusahum jaa'uuka fastaghfirullah wastaghfara lahumu rasulu la wajadullaha tawaaban rahiman loolu ñu naamuñu ko yàlla nag nekkoon mu jëg jamono comme dama leen a xeeñ feeñ ak sayduna muhammad mu leen jéggalul seeni bàkkaar di leen gàggantil seeni gàkk di leen ñaanal ci seeni soxla bàyyil ma roof leen siróob sayduna muhammad mu leen di mën a wéttali moo tax istixfaar ñëw salaatu ala nabi ñëw laa ilaaha illallaah ñëw jawartul kamal ñëw yu mel noona yépp ñëw ñi di ko wéttali ko buñ ko amutoon rekk yàqu jamono la ju doy waar ba xaadimu rasool si Ahmad bàmba tënk na ko ndeysaanam ci yàqoog jamono ji nee na jamono yëpp nit ñi dund yëg naa ne man xaadimu rasool jamono ji ñuy dund moo ci gën a bon jamono ji moo gën a bon ja yonentu yàlla noox feeñoon ca itam ña moo gën a bon jamono ja yonentu yàlla ibrahima feeñoon ca nitam ña moo gën a bon jamono ji nga xam ne tamit sayduna isa feeñ na ko ca nitam ña xatta jamono ji moo gën a bon ci mbooleem xeeti jamono yi nga xam ne passé nañ moo tax mu ne hada zamanu aqbaxu zamani li kasrati l isyaani fi buldaani wa kasratil amraadi wal asqaami wa kasratil mawti alal aqwaami sëriñ tuuba xaadimu rasool nee na jamono yépp jamono ji ñu dund ci gën a bon jamono joo xam ne xarit bu mat xamatut jamono joo xam ne mbokk mu wér xamatut jamono joo xam ne xalal ju law moo am waaye xalal ju leew xamatut jamono joo xam ne kilifa gu mat kilifa xamatut presque wala nga xam ne néew na lool jooja jamono man jàpp naa ne mbooleem jamono yi fi jaar jóge jamono ca gën a bon mu ne jamono la joo xam ne moo gën a bon ci jamono yi ndax mooy yàlla dafa bëri mooy yàlla dañ ko daan xam fu ñu ko daan joxoñ tey nag ci dëkk yëpp ci xeet yëpp ci ruq yëpp lañ koy joxoñee waaye njëkk na bu njëkk ba am mooy dafa am fu ñu ko daan joxoñee léegi nag moo tax moom mas mu bañ ko sax ba def ko takk taksiir ne li kasratil isyaani fil bul buldaani waxut fil baladi mais bul daan la wax mu dugal dëkk yëpp fu ne rek ña ngi fay mooy yàlla te di ko moyee ci façon moyen yu ne nag mu ne yëg naa ne ji jamono feebar dafa bëri te li ñu yóbboo feebar yu bëri suñ maam yi xamuñ ko woon suñ baay yi xamuñ ko woon mooy yàlla gu bëri rek ñu demee ba ab jullit sa mana feebar feebar boo xam ne su ca deewoon koo ne sangu ko mu joxe ngànta koo ne sàng ko mu joxe ngànta koo ne kaay seede ko mu joxe ngànta koo ne kaay ko mu joxe ngànta te loola dalab jullit fu ñu jëm muy feebaru Ebola naka noonu tamit mu ne jamono la ju bon joo xam ne ñu baax ñaa ngi wàññeeku rek ñu bon ñi gën di des gën di fés ñu baax ña gën di dem moo tax mu ne wa kasratil mawti alal aqwaami gars yàlla ya rek ña ngay ña ngay ña ngay dem rek bëri dee ca nit ñi rek deegu bëri gi rek la bëgg a junji te deegu bëri googu ndey saanam dafa bëri ci nit ñi nit ñaa ngi dee rek fan yi gàtt lool amul benn semaine booy déglu rajo ci suñ jamono jiita te dégguloo accident boo xam ne fanweeri nit fukki nit juróom-ñetti fukki nit dee nañ ca ñi tànk ya daggete woo te bu njëkk ba ndeysaan buñ suulee waan nit bala ñoo suulaat nit dafa daan yàgg nit ñi ragaloon dee tey nag bu ñuy suul nit ñi sax xale yi ñoo ko gën a ñeme ndax dafa bari lu xas bëri ci sa bët nga ñeme ko ba ngay dégg ñu ne dàq leen xale yi xale yi sax ñoo gën a ñeme mag ñi far mu ne jamono la joo xam ne tamit réer ak xor dafa bari néewal matal kóllëre bëri nit ñi sàmmatuñ kóllëre koo lebal teraanga mu la safaan ba ne wa kasratil jëhli ma al xiyaana wa qillatil wafaai lil amaana mun a jamono la joo xam ne tamit kersa dafa néew ci jigéen ñi jigéen ñi amatuñ kersa xoolal ma colaay yu bon yi jigéen ñi yi sol xoolal ma jigéen ñu ñàkk kersa yu ñeme bët yi di wañar wañar ci télévision yi boole kook seen yére yu bon ya nga xam ne ña ngi koy sol koo ki gis ma ngay wañax wañaxi ba mel ni ay njalax njalax njalax njalax aan yooyu nekk ci biir maanaam eh, ndox mi lu ne nga dugg ca ngir ak ñàkk kersa walax njaan rek la ci ñu bari niru lu ne nga wane ngir ak ñàkk kersa moo tax mu ne daal wa qillatil xayaai fi niswaani wa qillatil xayaai fi mu ne yëg naa ne tamit ndaw ñaamatuñ kersa bu njëkk ba ba fi yar di nekk xale boo xool ndeysaanam mu gëmbu xale ñi mu mag sax ci mbedd wala muy sukk ak nit muy sukk ak kilifaam ci bool ba ma nga sukk sës ko ca wóom ya jël loxob càmmooy ba teg ko ca bool ba di xool fa ya tollu boole kook laaw di lekk fi mu tolloog waaye léegi xale yi dañoo ñàkk kersa ba mag moom muñ bokk ak bool bu mag ma sàgganee xale ya far def ko ko amatuñ kerse ci seen waajur yi amatuñ kerse ci seen yaay yi amatuñ ko ci seen morom yi bàyyi amatuñ ko ci seeni mag ñi daanaka kerse dafa dàqu mu ne nag la ma ca gën a métti wa qillatil yi wal abraar yi wa kasrati nifaaqi wal fujjaar yi jamono la joo xam ne tànneef yi dañoo néew mooy ñu baax ñi gaay yàlla yu baax yu sell di jaamu yàlla di ko sellal ñu néew lañ bañ leen di joxoñ ak naafiq bari kàccoor yi bëri di ko fis di ko fisal ba foo dem tey kàccoor ya ñooy idole ya nekk ay vedette yoo xam ne ñoom la ñuy xool ñoom la ñuy joxoñ ñoom lañuy fonk ñoom la ñuy yëkkati ñoo yore xalal ya ñoo yore kat-kat yu baax ya ñoo yore étage yu baax ya waaye ndeysaanam ñu baax ñi xamuñu dara boole kook ñu baax ñi néew lool ñu bon ñi bëri boole kook fés kàccoor yi ñu bon ñi naankat yi sàngara yi njaalokat yi su ko defee këppkatu kees yi fenkat yi kàccukat yi yàqkatu nit ñi tiriyan nit ñi ñi di tur neqalu doomu aadama yi ñi tàggat nit ñi jëmee safara di ay fujjaar bari lool te inal fujjaara la fi jahim mu ne tamit bokk na ci li yàquk jamono ji taadimu zi maalin wa taxqiiru al alim taqdimu jaahilin wa taaxiiru al alim mu ne jamono ji tamit jamonoy màggal borom xalal la képp koo xam ne boroom xalal lu mu bon bon bon bu tisoolee gaa yi ña ngi ko tiim ne ko yarxamukallaa ña ngi koy fëggal dàllam yaa lu muy bëgg a def ña ngi ko cay jiitu lépp loo xam ne tamit ma ngi cay feeñ ña ngi cay fësandoor ak moom donte gëmuñ ca tus mun a jamonoy xeeb boroom xam-xam yi la jamonooy jiital ñu réer ñi la jamonoy gannaawal ñi nga xam ne boroom xam-xam lañ moo tax mun a jamono jii daal ku ci bëgg a mucc maa ngi lay digal na nga taqoo noppi maa ngi lay digal nanga nga sa néeg booy génn sa néeg rek nay julli ji farata booy génn sa néeg rek nay dem sa palaasu liggéeyuwaay ba waaye duwut jamonoy garan place duwut jamonoy jotlante ay wax duwut jamonoy dugalante génnlante hada zamanu zamanu sukkooti wa zamanu lusuumi lil buyooti loolu ay way la yu ama am solo boo demee ca téere bu ñuy tuddee axiru zamaan Seex Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul wax na ko ca moo tax tamit jamono ji mbon ngee tax Euh, suñu maam ju tedd ji Seydil Haaji Malik wax na ko nee na laqad laqiina zamanan ajaba zamani alxayru fiihi bila shakkin ala daxani mu ñu ni yàlla natt nañu dañoo dajeek jamono ju gën a héemu ci jamono yi sëñ Tuubaa dafa noon jamono ji gën a bon hada zamanu aqbaxu zamani mamalaaji mali na ajaba zamani laqad laqiina zamanan ajaba zamani ñun daje nañoo jamono ju gën a yéemu ci jamono yi ñu ne ko jamono ji lu tax mu yéemu mu ne yiiw li nga jàpp ne lu baax la ba nga foog ne def nga ko mu ne dax mu ne dafa mujj soppeeku daxan xam nga ki taxane woon bay taal ngir togg añ dëgg-dëgg safara rek la bëggoon waaye nag boo taalee matt mu tooy boo moytuwul saxar sa ëpp safara wa soo jariñoo safara wa timit maanaam Euh, saxaar sa dana mujj gand la dana mujj lor la dana mujj turloo sa bët yi ay ndox mu ne tamit aw xiw ci ji jamono xiwu kooj rek a fi des xiwu njaxasaan rek moo fi des waaye xiwu sell carrément yàllaay kese nekk ca mu ne loolu yombatut waaja waxoon na ko sax nee na ji jamono ku bëgg a jaamu yàlla gu amul ngistal da nga mujj far bàyyi jaamu yàlla yàlla yu ci bëri soo toppee tànk yi gis ca ngistal dana la ca xeeñ wala nga gis ca rëy wala nga gis ki gis leen ma mbaa dégg leen ma yooyu yëpp dafa bëri moo tax mu ne alxayru fiihi bila shakkin ala daxani ma ngay junji xadis bale ndeysaanam xudayfatu bnu yamaan nii waxoon ne fu nit ñi mosa toog di laaj yonantu bi yiw rek man lu bon laay laaj mu musuma laaj lu baax ñu ne ko lu tax mu ne damaa bëggoon a mukki ci lu bon ndax lu bon boo ko xamut doo ca mën a mucc mu indi xadis boobu moom la ubbee téeréem ba di kifaayatu raaxibiina jamono ji maam Khalifa Niass wax na ko nee na ilallahi nashku da zamana wa ahlahu li maylihimu amma ata fi shariati mu ne ñun de ngi muslu yàlla ci jamono ju bon ji nga xam na ñépp a jéng woon sharia gannaaw topp caaxaan topp xalal topp àdduna topp daraja ci la ñëpp nekk ba tax na mu jamono ji taawada min idrakihi kullu aaqilin min asalafi almaadi maxaafati fitnati am xalifa nee na jamono ji mbooleem gaa yi yàlla ya ci jamono yonent bi bis ni ki tey ñépp muslu woon nañ yàlla bu leen fi jamono ju nëx ju tilim ju yàqu ji fekk nga xam ne ko sukkandiku ci moom yaakaar ko mu xor koo jëflante mu xor la koo lebal teraanga mu fayee la safaan ba moo tax mu ne xadaari min abnaai zamani jamiihim lima hum fihi min dawaahil makidati mu ne soo bëggee mucc ci bàyyil doomi jamono yi rek te dem taqoog borom jamono ji di yàlla waaye lu ko mooy koo boo toppee jamono ji ak doomi jamono ji li xëpp gi seeni mbir pexe rek la ci la ñu pexe ba dund rek fexe ba tappale rek di jamono joo xam ne jëmm yaa dund waaye fekk na rooxu yi ñoom dee nañ bu yàgg yàgg yàgg yàgg kon jamono jàngook ak li ci gaay yàlla yi wax jamono jàngoog ak ni ko gaay yàlla yi junjee di jamonoy bàkkaar su boobaa nag kom yaa ngi ci jamono ji mënoo koo génnati te jamonoy bàkkaar la maa ngi lay ñaan na nga luy kafaara sa bakkaar yile li kafaara bakkaar nag foo ko déggee rek boo ko defee ngi jéggale say bàkkaar loo man nang ko sonnee ndax nag ndax bakkaar bàkkaar yi bari ci jile jamono ba jéggi dayoo euh, boo demee ca jawaahirul ni yay kafaara bàkkaar tudd na ko ca boo demee ci jaami ibnu misri yi tudd na ko ca boo demee ci téere bu ñu tuddee misa bu rahma tudd na ko ca boo demee ca rimaax bu Cheikh Omarul Fuutiyu tudd na ko ca boo demee ca abul mawaahibi ku ñuy tuddee Seydil Arab ibni Saayih tudd na ko bane sax wa bi mukaffaraati lil dunubi wa bil mutahharaati lil qulubi wa man alayhi kutubul majidi fa laysa laasiman lahu tajdidu Euh, maanaam mu kafaraatu zunóoba ngoog lu xam-xam solo la nit ku nekk war na koo sonnee war na koo hittewoo taxaw ca bu baax a baax a baax soo ma toppee nag danaa la ko wax benn par benn bu mu la fekkoon nga di ko def nga gën caa góorgóorlu dëgër ca yom la fekkutoon nga di ko def nga fexe ba wuti ko jamono ji ñaar rekk jara sonnee mooy luy yokk aw yiw ak looy def ba yàlla jéggal la say bàkkaar waaye lu dul ñaar yi jëratul sonne boo xasee am ñaar yi ñàkkatuloo dara loo ñàkkoon yépp ñaar ñii danañu mujj jox la ko amaa yuy kafaara bàkkaar nag boo demee ci yeex yi ci ahadis yi dafa ci am xadis yoo xam ne dafay wax ne daal lii boo ko defee mu kafaara la sa bàkkaar yu mag ya ak yu ndaw ya ñaar yooyu lay tudd noppi ci ca des am ci yoo xam ne dafay wax ne soo ko defee ñu sa bàkkaar yu njëkk ya ak yu mujj ya nda koy yu njëkk ya ak yu mujj ya rek xam nga kon loolu na yu mag yaag yu ndaw yaag yu feeñ yaag yu nëbbu yaag yi nga tay yi nga tayut ak yépp yooyu dafa cay dugg am ci yoo xam ne day wax ne boo ko defee rek ñi kafaaraal la jéggal la sa bàkkaar yu njëkk ya waaye du tudd yu mujj ya am ci yoo xam ne dafay wax ne rek su ko jaamab yàlla bi defee ñi kafaaral ko ay bàkkaaram bàkkaaram rek lay wax waaye du ca farañ fànke naan bu njëkk baag bu mujj baag wala bu mag baag bu ndaw ba yooyu du détail yooyu du ca dugg boo seetee kon xeeti ahadis yi teg tale luy kafaara bàkkaar façon waxin wi ngay fekk mu di ko waxee waxinu yu mag yaag yu ndaw ya wala waxinu yu njëkk yaag yu mujj ya wala waxinu yu njëkk ya rekk nopp ci yu mujj ya wala waxinu ñi kafaara la say bàkkaar rekk waaye duggul ci benn détail di ca leeral yii la ak la kon noona nga fekkee mu di ko waxee boo ko seetee nag xadis yi nga xam ne dafa rot saxaaba yi solo ko jëlee ko ci yonantu bi yëpp di xadisul marfuu muy tekk maanaam di xadis yu wér yuy tekki dañu ku def nangam ñu jégg la say bàkkaar yooye lu bëree bëree bëree bëri la boo demee ci ibnu xajar wax na ca lu bëree bëri imaamul xataab mi nga xam ne moo sarxa muxtasarul xalil wax na ca lu bëri xaafiz al munziri wax na ca lu bëri jalalu diinu sayutiyu wax na ca lu bëree bëree bëree bëree bëri waaye tamit saydi muhammad ibnu jaafar wax na ca lu bëree bëree bëri xam naa soo ma toppee nag ma commencé la farañ benn par benn ca yooya naka noonu ñi ko tudd tamit ci kafaara bakar seydil xaaji xuseyni wax na ca lu bari Seex Omarul Fuuti yu góor ak yàlla gu tedd googa daan wax ne sama tur mooy sama dund sama dund mooy sama tur noo tudd mu ne Omar soo jëlee Omar juróom maanaam ñetti leetar la ayin la miim la raa la ayin foo fekk ci siifur 70 lay tekki mooy juróom-ñaar fukk mooy ayin foo ko fekk loolu lay tolloo boo jëlee miim ñeen fukk rek la soo jëlee raa 200 la muy ñaar téeméer mu ne nag lii noonu laa tudd muy ayin miim raa waaye ayin miim mooy sama dund ci nan mu ne maa ngi dund ak yéen nii yàlla xamal na ma ne juróom-ñaar fukki at lay dund mu tolloog ayinu sama omar ga moo tax juróom-ñaar fukki at la dund mu tolloo kun moo tax kon mu dund ko ci maqaamaab kun fa yakkoon jubóog yàlla ba lu mu wax yàlla def ko ñu ne ko miim ngi tekki ñeen fukk nag mu ne maa ngi dund ak yéen ñii waaye yàlla xamal na ma bala maa génn àdduna danaa xare ñeen fukki xare yàkkale ko toolab lislaam bii moo tax Cheikh Umarul Fuutiyu la dund juróom-ñaar fukki at xare na ñeen fukki xare ku dund juróom-ñaar fukki at xare ca ñeen fukki xare dafay tekki ne sa dund bi yëpp ci xare rek nga ko jeexal ñu ne ko raagi tekki ñaar téeméer nag mu ne mokkal naa ñaar téeméeri téere yi nga xam ne ñooy ummuhaatul kutub yi ba bu ñu suuxoon ci géej gi sax mën naa ko bindaat duma ko xool waaye tax danaa taalif lu mat ñaar téeméeri téere wax nañ ne téereem yëpp boo ko calculé woon ëpp na sax ñaar téeméer kon nga yëg ne Seex Omarul Fuuti yu amut morom moom la maam xalifay fay ne Omarul Fuuti yi muzilu li kufrin bi rimaahi ala nuxuri liaami fa anaara al bilaada sharqan wa garban wa huwa fi tariqi badru tamaami kooku mooy Cheikh Omarul Fuutiyu boo demee ca téeréem bu ñu tuddee rimaax ca euh, maanaam buntab juróom fukk ak juróom ca téeréem ba buntab juróom fukk ak juróom da nga ca fekk mu tudd lu bëree bëree bëree bëree ci luy kafaara ay bàkkaar boo demee ci téere bu ñu tuddee duratul xarida téere boo am solo la ñaari xaaj la bu fekkee da jënd sarxa ba moom mooma timit tudd na lu bëri ci luy kafaara bàkkaar lam ca tudd sax ci diggante way yaag wi sariya mat na juróom fukki yëf yoo xamee ne nii benn boo ca def yàlla jéggal la say bàkkaar léegi-léegi nag mu tudd bàkkaar yu njëkk yàgg yu mujj yi léegi-léegi mu ne bàkkaar ya rek léegi-léegi mu ne yu njëkk ya rek waaye dana la noonu la koy toppee ba mat juróom fukki yëf yoo xam ne benn boo ca def rek yàlla jéggal la say bàkkaar kon tudd naa la yi kafaara bàkkaar ak wax naa la njëriñ yi nga xam ne am na ko moom kafaara bàkkaar xam naa nag incha allahu boo ma toppee suba ci waxtu wi ma commencé la limal benn par benn benn par benn ba boo mooy tuut waxoon naa la fanweer sax waaye danaa la ko gën a yokkal ba mu ëpp sax juróom fukk yoo xam ne benn boo ca def rek maanaam hmm, yàlla jéggal say bàkkaar am na ca yoo xam ne yu ñuy wax rek la nga koy wax yàlla jéggal say bàkkaar am na ci yoo xam ne yu ñuy jëf la yàlla jéggal say bàkkaar xam naa boo ma toppee suba nag dama lay njëkkee tuddal yu ñuy jëf yi doon laa mujjee tuddal yu ñuy wax yi ndax lu ñuy jëf moo gën a jafe lu ñuy wax su ko defee nag bu ma njëkkee yow ci jafeya su boobaa su ma wàcceeg yow rek dana mën a yomb nga xam bu mujj ba waaye su boobaa nag yow miy déglu nga seet euh, ban la ci sa kartan man rek nga dem defi ko boo mënut bu ñuy wax ba nga fexe def bu ñuy jëfi ba soo mënut bu ñuy jëfi ba nga def bu ñuy wax ba soo mënee boole jëf jaag wax ja nag yëpp mu gën a baax ndax jamono ji lu ñu la wax ne soo ko defee ñu jéggala say bàkkaar rek jar na yittewoo ko tamit sonnee ko bari na looy wax wala nga jëf ko mbaa ngi jëf ko ki sa kanam nga déglu ko nga yaakaar ne lii du bàkkaar te fekk na bàkkaar la boo xam ne bu la ca yàlla toppee sax mën na laa dugal safara ëllëg yonent bi nee na léeg-léeg nit wax wax joo xam ne sax du ca bàyyi paaram day fon li mu wax du dara fekk la mën na ko dugal juróom-ñaar fukki lolli ci xóot xóoti safara moo tax kon nañ hittewoo luy kafaara bàkkaar yi ndax jamono ji ñuy dundukaat jamonoy bàkkaar la di jamonoy mujj ak jamono di jamonooy joo xam ne mbooleem gaa yi yàlla may cër muslu woon nañ yàlla bu leen fi jamono ju nëx ju tilim ju doy waar ji fekk su ko defee kon ñun nag yàlla yàlla natt nañu mu fekk ñu fi kon nañ xittewoo luy yokk xiiw ya te xittewoo timit luy kafaara bàkkaar ya xam naa ba ma toppee suba ci waxtu wi rek incha allahu rabbi ma sof ak yow li ma sosoon ak yow nag commencé di leen limal benn par benn ngay noté incha allah ba fi ko yàlla xemale wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu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 lile samaw ñaq tabbi na ci biir toolu Cheikh Seydil Hadji Omar Dramé